واعتقادنا وأمنا من الجوع والخوف بلادنا وبلاد وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولروح سيد الخديم ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وصرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا سيد الخديم wala arwaahi jamiihil muslimiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa mawlaana muhammad xaatimi nabiyyiin wa imaamil mursaliin subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin am dox la mu jot dama bu mu jot la ok asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bokki jullit yi. bokki taalibe yi. bokki taalibe yi. fépp fu waay mën nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew. Cheikh Mouhamadoul Mountakha. Cheikh nuyoo ci yéen. mi ngi ak nuyoo. ci yéen ci ci yéen ñëpp. yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko. ñu ngi ñun sunu yàggal ko fi lool te wéral ko. baax yi ak mu àggale yéene yi magam yu baax yi ak way juróom yu baax yi ba mu àggale jëfi boppam te ma àggale jëfi boppam mi ngi sant ñëpp mu ne mi ngi sant ñëpp tàmbalee ko ci jumaa ju mag ji tàmbalee ko ci jumaa ju mag ji mbooleem jumaa yi boote ci moom ci tuwaa ak mbooleem jumaa yi nekk ci dëkk bi yëpp ak jàkka yi ak jàkka yi ak biti Touba ak biti biti dëkk bi ak biti réew mi yëpp sant ñëpp sëriñ bi nee mi ngi sant ñëpp ci ni nga xam ne noonu la digle woon liggéey bii. ñu defe ko noona te muy jëf jëfin wu sell. muy jëf jëfin wu am lu ajoon mu am loo xam ne ajoon na ko ci liggéey bi. bi ñu noppee ñun ñu ay taalibe. bi ñu noppee ñun ñu di ay taalibe. jubloom moom moo moo koy àggale. sëriñ bi nag ak jubloom moo xam moo koy àggale boppam. nee na mi ngi ñaanal sunu borom. sunu borom yàggal ko fi lool. li tax mu dajale ñu ci ci ci jumaa yi ak ci jàkka yi. li nga xam ne moo tax mu dajale ñu ci jumaa yi ak ci jàkk yi. sunu borom defal ko ci lu kawe ñokkam. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. ñu ngi sant sunu borom bu baax a baax. ci bokk yi teew fii. ci bokk yi nga xam ne teew nañ ci barab bii. kër yi ak ci këru Sëriñ Tuubaa yëpp. fu ci nekk njaboot jóge na fu nekk barab bàyyi nit bàyyeekoo na fa. ak ñu sëriñ bi seexal. ak ñu sëriñ bi seexal. ak ñu sëriñ defar. ak ñu sëriñ bi defar. ci wàllu baatin. ci wàllu ci wàllu baatin. fu mel ni kër Cheikh Abdou Lahad gee. fu mel ni kër Cheikh Abdou Lahad. Eh, sëriñ Amsa nga fa. sëriñ Amsa ma nga fa. ànd ak daayira xasaayid yi. ànd ak daayira yëpp. di jàng alxuraan ak di jàng xasida. di di jàng xasida. kër Sëriñ Mourtala. kër Cheikh Mamadou Mourtala. fu mel ni soxna Mariama ba nu soxna Mariama moom Cheikh Souhaïbou ak mboolem mboolem jàngalekatu jigéen yëpp ñoom ñëpp ña nga teew foofa bu ñu demee fii ci sowu jumaa ji asxaabul jannati muy mbokk waa mbusooba yi di ay soxna mboolem seen i jànkat seengal seen i jàngalkat ñu bi ñëw nañ dëkk bi yëpp li war ci ñoom ci taalibe li war ci ñoom ci taalibe sëriñ bi gis na ko nee na mi ngi sant bu baax a baax daara alxuraan daara alxuraan yi it fenn desul fu daara nekk rek ñëw nga wuy si ndi woote sëriñ bi eh, sëriñ bi da cee fasaale ci njàng mi waaye taxawaayu yow ma arafa loolu suñu tawfeex la bu baax a baax li li mu bëgg lépp daal. ñu ñaan sunu borom lépp loo xam ne sëriñ bëgg na ko. sunu borom defal ko ni mu ko bëgg sunu borom defal ko ni mu ko bëgg. waxi murid la waaye li waaw de loolu sax waxi murid la rek xanaa waaye nag li mu bëgg sunu borom nga def baax a baax. di ñaan sunu borom ñu teew ko ay at yu bëree bëri. lii rek mooy ak taalibe. lépp lu sëriñ bi digle. lu sëriñ bi digle. ñu def ko ñu ko bëggee. ñu taxaw ji ni mu ko bëggee. tam mu defal na tamit li ñu bëgg ñu defal na ko. wala li gën ci ñun mu defal na ko. wala li gën ci ñun mu defal na ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi waaye toll na tàll. amiin amiin amiin amiin sëriñ bi mu ne ñu def fukki laxlaas ak benn. addiyee ko sëriñ Mamour mi nga xam ne moo yor liggéey bi tey.